asalaamaaleykum euh, askan yu ñuy bàyyee xel ni ñu leen ko doon defee saa su ne seen jotaay euh, mbokk yi xalima bu ñëw mbokk yi ni ñu koy waxee xalima bu ñëw dellu si waat tey seet si waat si tey soxna ay dara yaakaar naa bu ñuy waxul sax tur bi bu ñu ko tàmbalee dinañ xam ne moom la bu ñu waxee Nord daanaka boo yegsee ba ci pharmacie victoire rek xel yëpp day delluwaat ci soxna su baax ci di soxna ay dara soxna Kya balaa ñuy sori rek euh, mu mel ni tey euh, yaakaar naa tey jotaay bi euh, mel na tuuti am jotaay boo xam ne am na lenn loo xam ne daf cee yokku tey mu mel ni say mbokk yi nga xam ni bawoo ba ci diwaanu Mali ñëw tey gane si la ñu ne foofu tey ñu jàkkaarloog ñoom jàkkaarloog tey sa jëmm ji indi seen mbégte soxna Kya ñu ngi lay nuyu di la wax salaamualeykum. maaleykum salaam maa ngi nuyu yéen yëpp ñuy àdduna yëpp. di julli si prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nuyu yàlla subhanahu wa taala yaa waxab yaa yim yaa jujjale wal kiram maaliki yawmi diin yàlla subhanahu wa bi ñu bàyyi fi tey ba ñu nekk di tëgg di di tall di waxtaan loolu yëpp yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ko di ko gërëm. macha allah waaw ah, soxna yaa mu mel nii tey ñoo ngi ñëw tey fekk si la fii ak ay gan yoo xam ne muy émission boo xam ne ñoom dañ cee yem mm-hmm. waaye ñoom ñu fépp ne foofu sax. faw ñu wane seen mbégte si say jëmm ji yow euh, soxna Kya ñoom mu mel ni Mali la ñu bàyyeekoo bëggoon nañu xam gis nañu boobu ba léegi ñuy tagg di wax ci langa euh, Mali malien xëy na ñoo ngi lay tagg yow nga am looy yëg euh, lan la ñuy wax ak loolu bëgg ndax buñ ko mënoon tekkil ak tamit solin bi gis nañ solin bi ku leen xool xam ni bokkuñu ci réew mi xëy na Mali lañu bàyyeekoo comme chaque jour ni ma wax ci internet bi ma ne géwél bu la woy ku la xam est la neex ko bëggee di nga man ak ñooñu yàgg nañ yàgg na keneen ki Adama la mu tudd kooku Gàmbi la mu jóge mu gis ma ne ne soxna Kya il faut ma ñëw mu ñëw keneen ki bois ah, internet yi xam ne ñooñu man ñooñu yàgg na du tey waaw dëgg la ñu ngi def traditionnel. ñoom ay chachère la même temps ay tëggkat la même temps ay sëriñ la. ay sëriñ lañ waaw gis nañu solin bi tey bu ñu xoolee ki nga xam ne tey moo yor wàllu mel ni xaw ma xalam bi. Mm. ñu ngi seetlu mu ngi sol benn euh, colin bi. Euh, léeg dañuy gis yow colin bi am na sa émission yoo xam ne da ngay mel ni sol genre yére yooyu muy sol bi ak euh, li mu sol mbaxane beeg yooyu mm. cosaan boobu lu waral li ni mel. comme suñu am suñu cérémonie bopp. yëg-yëg la. waaw moom yëg-yëg nañ boppam tey ñëw si soxna mu sol saay sañseen bi mais sañseen bi du sañseen noonu dafa am gàllaaju ah. waaw ba xam ne bii ba yére bi yëpp ay gàllaaju la d' accord d' accord d' accord soxna mu mel ni nag euh, balaa ñuy def tuuti rek euh, euh, mu mel ni ñoo ngi am li nga xamante ni loo ñuy tekkil ñoom ci li ñuy wax mu mel ni yow dañu lay ñoo ngi wax ak yow sa yaram di daw ñoom day waaye sama rawaane ah. yow dégg woon ñu ne Tamba Tamba Tamba mhm. Tamba lañ wax borom jine borom jine bi mhm. Tamba Bambi Haydara bani ko si ban asimka kooku lañ mhm. woy xam ne yaayam xam ne maamam xam ne fu ñu jógee loolu lañ tagg si bambara dëgg la da xamoo chacher ñoom xam nañ jine yi jine yi xam nañ chacher tabarkalla alhamdulilah waaw mbaak ya nabi wala bakuma la temi wala bakuma jatinatigi matate musoya biyanuwa senegali cɛ bɛ ɲɛnana tɛ musoya biyanuso akiya ne wale jinɛtigi kɔ tɛ yɔrɔ caman cɛ jinɛtigi ma mun barika tɛ kuma kɔ kɔnɔ dɛ ne wale cɛsitigɛla tɛ bɛn mankan ka jinɛtigi aw wele tɛ damu barika ɲɛsiya alijina mana bɛ yesu na ninu hɔ diɲɛ ni bolomakɛya muso y'a damu ani siyakumaya. ka bɔ woro ni ko de jinɛma worojɛ wasaden ni ko de jinɛma ka bɔ sisɛ ni ko de jinɛma siyɛjɛ wasaden ni ko de jinɛma ka bɔ nɔnɔ ni ko de jinɛma nɔnɔ kɛnɛ wasaden ni ka de jinɛma i ka kɛ ka. jina luzo mumuzo jina zoe ya jidenga yala awato yala la sabu nyuma digimo na le yala Kanya hambara jigi mɔmu ni wulali zu fila jigi mɔmu ni wulali zu hɔn jigi. kon mu mel ni soxna Kya mu mel ni euh, daanaka gis nañ mbokk yi ah say mbokk tey mu mel ni tey ñëw nañu tey sa xol mu mel na xaw na tooy lool nag ah, nit doomu aadama moom amulu ay mbokkam ba tax na tey ba ñu ñëwee bëgg a aal sax la ñu àndal ne dañuy wax ah, dañuy ànd ak yow tagg la mënuñu ci dara tey ñoom ku ci nekk ak sa cosaan ah, ba tax na looloo tax euh, Eh, wax dëgg yàlla gis nañ seen mbégte ñu jóge bàyyi ko ba Mali tombé nag émission bi nga xam yaa ngi koy waaj def ñu ñëw fëgg mhm. kon nag yaakaar naa loolu da ab firnde eh, la daanaka am na fi ñu la teg ca diwaan bi nga xam ne yaa ngi Sénégal waaye tamit yaa ngi Mali mhm. kon du ñu rek mooy jotaay xalima bu ñaw ba léegi rek ñuy ànd ak soxna Kya Aidara mhm. euh, jërëjëf soxna Kya Aidara ginnaaw si rek ni ko waxee rek euh, ba nga dalalee say gan ñu seet si woon la bàyyi ko ca diwaanu euh, Mali comme na nga ko waxee mel ni rek ñu ngi dellusiwaat ci li nga xam ne muy euh, jotaay li nga xam ne moo di xale moom ñëw. soxna Kya Aidara. Euh, tey fi ñuy dellu si rek euh, soxna Kya balaa may tàmbalee ndax soxna Kya rek moom rek mooy liggéey wala am na ñu koy jàppale ci liggéey bi. asalaamaaleykum mu tax naa def yaa ngi si jàmm alhamdulilah man kese maa liggéey mais sama garab yépp Mali laa ko indi indi ko fi Sénégal sama benn garab garab yi ñu ngi nii jógo fi Sénégal junne ko fi Sénégal. sama garab yëpp Mali la mu jógee wax na ko benn jour ma ne ni client nee na soxna Kiya Dramé sa garab yi baax na ma ne macha allah su nga ne soxna Kiya soxna Kiya soxna Kiya du soxna Kiya garab yi ñooy bées garab yi ñoo baax parce que su garab yi baaxul kenn wax soxna Kiya euh, su loolu tam paas na adduna bi dafa doy war mu taxaa soxna Kiya moom kese mooy liggéey su dem na dag garabam ñibbisi après rakam yi indi garabam fii Sénégal nànk na ba garab yi dugg. ma liggéeyuma kenn fii Sénégal <clears throat> ku ma liggéey tam mooy sama yaay suma waajur bu jigéen ku ma juddu comme ni yàlla waxee fonk leen seen waajur yi bu jigéen bu góor yëpp benn la sama waajur bu jigéen day jàppale ma sama waajur bu góor day jàppale ma mais sama garab yëpp bu dugg fi Sénégal sama waajur waajur bu jigéen mooy taxaw soxna si ba garab yëpp egg si par benn benn soxna kii yaa su nga gis te àdduna yëpp dégg ko barka la. moo tax malien nee ne ku am barka ku ko bugg xeex ou ku ko bugg deful lu bon day daan sa kaw ku ni wolof yi nee ne ku am caq ak ku amul caq est-ce que ñoom ñaar dañoo roxulo waa kay àdduna noonu la après àdduna nit yi dañoo soxor soxor dafa bari mais yeneentu bi prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon àdduna bi yëpp seen Babacar Si yarab yàttaloo sama sëriñ ku ma bëgg sama xol moo gën àdduna bi yëpp mais est-ce que nit bàyyi na ñooñu ñu ci bàyyi ñooñu ñu ci bàyyi soxna Kiya soxna Kiya nee ne sëriñu góor yi sëriñu jigéen ñi létt leen seen bopp dem si ginnaaw incha allah si kat mi yàlla maa ngi ko ñaan si président Macky Sall comme war na ministre de santé tonto ma maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala Macky Sall yàlla may ko deuxième man nga baal ma yow. waaw yow déggoon nañ fi li nga wax ci président Macky Sall. waaw fi. waaw a tax ngay wax de. Eh, man wax na man maay descendant Modou Fidiane Diabaté Kala di la sangoy be Makka. waaw Kangara dama bëgg wax nit yi nee rawaane rawaane jinne jinne dafa bare Sénégal pourquoi pas président Macky Sall moom population bi dafa bari ñun ñëpp ay sénégalais laay même suñu dem Mali yi ay sénégalais la santé sénégalais lañ yore mbupp laa sant de mbupp dorobe bii satisfiré bii mbupp laa sant am carte d'identité sénégalais passeport sénégalais <laughs> fii. yo xamul waa wax fi Sénégal la man mbupp laa sant de may borom dëkk bi yoo xam loolu. wax kay damaa bëgg wax euh, président Macky sëriñ bari na Sénégal torop macha allah mu taxa maa ngi jégalu du comme maa ngi tuutal sama morom sëriñ yàlla bugul ku tuutal nit du comme maa ngi jël lu ñaaw teg ko sama morom sëriñ yàlla bugul boobu moo tax man soxna kii yaa fi nga ma fekkee rek dama woyof xam ma diis xam ma rëy xam ma ko parce que lu tax yàlla subhaana taala moo sax ñu ay jaam kese la pourquoi pas président Macky Sall mu jàmbale ñun doomu aadama ñu nekk fi Sénégal ñu bëggul liggéey am xaalis xob yi àdduna ñu ngi doon dégg suñu xob yi mu ñëw fekk ki munu bi ki munu bi mu yem si boobu soxna Kya moom moo ne ki yi diabète yi tension la mu yem ñu wol leen ñu def benn concours ku nekk mu yem ni nga yem léegi ñu am xaalis waaw noonu la mais kuy jóg man Serigne la loolu adduna mu taxa. mu am deuxième mandat mu jàppale ñun tamit ñun Serigne waaw. mbokk yi yéen a dégg noonu jotaay yu xale moomu ñëw tey mbokk yi mm. beneen bunt itam génnaat ci beneen bunt mm-hmm. euh, soxna Kya mu mel ni mm-hmm. yi ñuy dégg di dégg mm-hmm. càngat yi ngay faral di joxe càngat yi ñu ci bëree bëri dañu jàpp ne soxna Kya ci xob ah, ci ci ci faj côté boobu lañ ko xamee mais càngat yi euh, dañ ciy joxe sangat yi di nga gis ñu jox ko nit yi ñu am lu bon comme ñii yow nga gis ko rek rafet na beneen mu taxa rafet na njool na macha allah su wax ne rek ñu tuy déglu ko mais lu tax loolu mu taxay yaayam moo liggéey kër mbaayam mu tam am loolu ku ndee liggéey sa kër baay demal si internet bi nga wax ba suba kenn du la déggul waaw wax leen loolu kii soxna kii ay dara góowaay ñu góo ñu jëm. Mhm. kon daal waaw bu bare bare macha allah. d'accord mhm. mais dañuy gis muy bare ñu xam ne dañuy euh, euh, dañuy dañuy aakimoo daal la jàmm. bu mhm. mooy sàcc daal la jàmm. Euh, sàcc boobu ñuy jël jël daal la jàmm. tabarkaale mhm. loolu. ay liggéey man soxna Kya man mii sama jëm bopp ma def kenn lu bon parce que xam na dee am na dund am na xam na baneex am na naqadi am na xam na tam yàlla ma ñu sax. na yàlla ma ñu sakk subhana taala nit mu tax il faut nga gëm yàlla nga xam na yeneen soxor yi yeneen iñaan yi yeneen yu bon yi yëpp ñàkk gëm yàlla la. ko gëm yàlla lim la may danga war a ko fonk tee ko sa ñaar loxo mais ko gëmul yàlla yëpp nga joxe boobu tuuti na si kanamam moo tax day jël jël daal laay di dugg si sëriñ defal ma bi ma ne. mais lan moo hmm. na nga am na sëriñ ko digal mais ma wax la benn waxtam am na doomu aadama yi yàlla bugg la leen seen ñaar waajur ñan leen danga dem benn sëriñ. nga ne digg ñu digg yu ma du fekk na kooku gàllaaj moo ëpp liggéey boobu est-ce que mën na si dara Serigne da sa liggéey liggéey yëpp am na ñeneen su jaxaroon na sa kanam yow mënu ko defar de comprendre daal la yooyu lu tax ñu sàcc ko comme borom su bugg na tukki du tukki bugg na tekki du tekki daxam xam daal la bu dox dox bu màgget boo sonn lan la daal la daaju ko si buy bi fu mu ko daajee du jóge fa ba àdduna jeexe ma ñaan yàlla subhanahu yàlla bu mu def loolu soxna kii ay dara mu def ko loolu si doomu aadama yi li nga xamul démb dëgg la li nga xamul tey du ko def waat mhm, mhm. jërëjëf soxna kii euh, euh, euh, mhm. bi moo ngi noonu 78 630 47 00 émoride ñu dellu si waat ci émoride bi nga xam ne tam mënul di bàyyi doomu aadama yi mu mel ni dafa ànd ak ñoom moo xam lu mhm. ànd ak jamono la mhm. eh, am na ñoo xam ne nga am duñ ko mën a dégg mhm. eh, soxna ki yaa ah, hémorroïde eh, fan mu tax àdduna bi moo tax tout maa ngi ko conseillé doomu aadama yi fii Sénégal ma ne ku am hémorroïde yu xamul ku la war a faju bu lekk mburu bu lekk pâte bu lekk kanja bu lekk yàpp loolu de aggravé hémorroïde bi sunu humeur ki bari na Sénégal même bopp di ko toj jeex. léeg-léeg ki mbuuru du ko mën a lekk pâte mun na ko lekk ceeb bu bare tuuti rek yàpp tam mu bàyyi ko kanja mu bàyyi ko humeur ki xolo day wob biir humeur ki day def aération. humeur ki su nga lekk du wàcc humeur ki day day indi abcès de foie abcès de poumon humeur ki day indi mauvais alerte humeur ki day gën a piti si ginnaaw humeur ki ni muy def bari na day sañ am na ñuy sax day sañ humeur mhm. bi feebar bu bon la déedéet yàggul humeur bi suñu la ko jox première bi ñu jox nga raxas biir ba mu set après ñu jox la bi nga baxal naan après ñu def la pompe nga pompe si ginnaaw Mm-hmm. yu ñëw mm-hmm. ci waaw mauvaise haleine mm-hmm. euh, ñaar façon la am na ñi si hémorroïde am na benn bi si infection la. infection waaw boobu infection la. moom tamit euh, waaw non non tam traitement boobu tam si la ko jox nga baxal di ko euh, façon tam dafa bari mu taal maa ngi jégalu maanaam mauvaise haleine nit ñoo ko def am na mauvaise haleine liggéey la yàq doomu adama pour mu togg rek mu xasan yooyu ay liggéey la am na mauvais alerte ñàkk toppatoo sa bopp la comprendre am na mauvais alerte humeur ki moo ko def. mu toll rek muy wokkatu boobu siti day def ko mais am na ñeneen tam garabu seytaane mën na ko def am na ñeene tam ndox mu ndox bi su ko sango mhm. day xasan yaramam am na ñeneen tam nit mën na ko sànni nit bon mu togg rek mu xasan yaram d'accord loolu tam liggéey am na. malienne. Mhm. waaye itam ni ma ko wax nga bokk ci réew mi di Sénégal. pire pire. waaw mhm. ñëw rek mooy. tey mhm. soxna soo mu doom suñu ñëw fii incha allah si ñu jox la garab nga am doom. su nga am doom si kàttum yàlla da xam ne jigéen suñu ñoom ñu di laaj la ba pare ba ñu jox la suñu garab comme su nga am benn trompe suñu garab du la jëriñ. su nga sa ñaar trom fonctionné na su defa bouché di nga dem débouché ko comprendre na su nga ñëwaat ñu nga ñëwaat ñu jox la garab pour nga am doom incha allah si quatre mois su nga tollee diggante di ñëw ñu jox la garab nga baxal di ko naan après am na qualité ñu jox mottal biir bi mu wàcc di ko mottal pour seytaan ak dara bu mu dugg si doom doom bi tam su nga juru doom même du moom kes a keneen ak keneen soxal naa pour dàmp doom bu garab xale am nañ ko indi nañ yooyu tam waaw indi nañ yooyu tam pour dàmp xale yi ah traditionnel jógewul fii Mali sama garab yi wallaahi billaahi tallaahi Mali la mu jóge yëpp xob yii commencé saa bi xolol xolol xolof soble dem muy xolof yëpp amul benn bu jóge Sénégal. maa gis benn interview nga nekk ci waaw waaw. Euh, mu waaw man mag yi man mag yi xale du ma ñaanal ma wax la diggante yàlla tax man sama arawaan sax du xale kilifa la. Mm, xale du ma ñaanal man mag yi laa dem. man mag yi ñooy sama yëpp mais su nga xoolee sama client presque yëpp ay mag yi la mhm. soo nekkee waxtu bi dab nañu waaye du ma daaneel te wax ñu ci li nga xam ne xam naa ni tey bu ñu ñëwee nañ ko doon fekkee fi fekkuñu ko fi mhm. muy mhm. Euh, garab gi nga xam ne moo di diabète mu mel ni dafa jeex sax dafa jeex gerte bi kese moo des même je passe benn paa ñëw na mais tàgguma ni mu ñëwee mu ne yéen ñoo ko wax ma ne ah papa dafa jeex mais grave ma teg tibb gerte bi jox ko mu lekk parce que xob bi ak gerte bi suñu du taxaw. gerte waaw gerte bi tam de wàcc sukkur bu baax mais gerte bi ak xob yi mooy jaxase di ko naan instant bi tudd yi bari lañu am fii suñuy garab yi ñëw ñu woo leen ñu jël si garab yi waaw ni yàlla tal kenn mënu ko fay mu taxa mu taxa yàlla su la tal kenn mënu la ko fay doomu aadama ñu bàyyi soxor waay. macha yàlla ko may. soxna ki euh, mm-hmm. euh, mm-hmm. allah si katum yàlla ngi bëgg a waajal mm-hmm. ay yoon euh, maa ngi tàggatoo maa ngi nuyu yàlla subhanahu wa taala yàlla bu ñu bàyyi fi julit prophète Mohammed sallallahu alayhi di nuyu yéen ñëpp nuyu sama yaay ak sama papa bu baax baax surtout sama yaay ak sama papa maa ngi leen nuyu bu baax baax nuyu waa Mali nuyu waa Sénégal nuyu sama tëggkat yi ma tëgg nii kontaan trop tëgg yi neexi la ma def tëgg bi dugg sama xol la ma def loolu kenn mënu ko fay adama beneen bi ñëw na je passé jóge Gambie may ma or ak xaalis xoolal moo may yëpp loolu dara fayu ko yàlla rek ko mën a fay loolu yëpp bëgg soxna ki yaa soxna ki yaa ku ko gis rek mu bugg ko du soxna ki yaa yàlla la yàlla la yàlla ku mu may nga nangu ko mu mu jàppale ñu suñu xob yi pour suñu liggéey xob bi moom na dem jigéen jóg na man sëriñ la góor jóg na man sëriñ la man soxna ki yaa waxul kenn du sëriñ yëpp sëriñ la macha allah si katum yàlla ñu def benn concours pour suñu liggéey ñun ñëpp ñu am ci dara loolu la bëgg man ak sama moroom yëpp jërëjëf soxna Kya Aidara mbokk yi santaam nañ ko beneen yoon rek euh, dañ ko doon faral di woon waxee rek di ko ñaan rek allahu buur bi subhanahu wa taala doole dundal sa fan amin doole la defal tawfeex ak tey si rek na yaa defal la sa xadare ni ci barke yonent bi ci sallallahu alayhi wa sallam amin taala am sëriñ ba ñu mhm. koy ñaan bu baax a baax a baax mhm. mbokk ñu fekk si wan kotan fii tey ci diwaanu Nord Foire boo ñëwee daan mhm. daanaka ba ci pharmacie victoire mu mel ni numéro téléphone bi mu ngi noonu rek affiché ci écran bi 78 630 47 00 di nuyu mboolem équipe technique bu Sunugal 24 point net ci wàllu éclairage bi caméra bi montage bi Mm-hmm. Mamadou Dóor waar lay fatigable ci wàllu réalisation bi Sénégal yu mm-hmm. toog ci wàllu présentation bi seen bokk taalibe la woon Mouhamadou Lamine Mountakha fii mm-hmm. ci diwaanu Nord Foire yàlla ni borom jàmm tey ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi doon ñu defal jàmm dina wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu